te ku ne day joxee xalaatam te xalaat yi des fois du méngoo. loolu la ah, ba tey dañuy def si mën bi ndax ah, defe naa actualité la. Ah. bu yàggul la gis nañ tamit ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko def sortie. Mm-hmm. Bougane Gueye Dany tamit def sortie. Mm-hmm. mais ñoom ñaar jamono bi tiraillement bi am seen diggante. xam nga xam nga <laughs> xam nga loolu sànq laaj bu am solo euh, nee nga ma euh, euh, première dame. Mm-hmm. ma waxaat encore ne première dame elle a droit mu dem fu ko neex. comme man ni ma amee droit dem fi ma neex waaye euh, dafa fekk ne euh, dem bi dem bi dafa am yoon ndax ñun Sénégal fii sunu constitution amul pàcc bu mu consacré première dame ñun faluñu faluñu première dame bu ñu faree boroom këram boroom këram moo war a doxal boroom këram ba fii may wax ak yow kenn dégg ko mu dem ci mbëdd ma kon foofu laa waxee Ousmane Sonko ak euh, euh, Bougane man Bougane sax laa gën a waxal ndax Bougane moo ma yar. ñoo bokkoon suñu Walfadjri bële. sama première brève yi ma def ci àddina euh, Bougane laa defal français bi ak Bécaye Mbaye olof bi Bougane di sama mag di sama xarit man moom laay waxal parce que wax naa ko sax sànq ci plateau bi Bougane journaliste émérite. dem tey ba taxawal D-Media mm-hmm. jël ay professionnel ne moom mm-hmm. Bougane journaliste bu mu dégg sa nga nekk en difficulté mm-hmm. mu jël la dugal la fa kon moom ñun ñi di ay rakam xam ko bu baax a baax mu loolu tàcc ko ne ko bravo mu jël nag beneen yoon muy yoonu politique am na ci droit ba tey waaye man li ma ko reproché mooy waru woon topp Sonko ci terrain euh, xasanteeg xaxar dafante bi parce que euh, waxtu bee ko laajul fi mu ne nii Sénégal yoo nekk si ay jafe ay xat-xat jamonoy xat-xat na bu ñu ci tolloo ku la saaga ne ko baal naa la dangay xam ne kii li kay door mi ngi ñëw buggaan xam communication maîtriser communication te d'accord ma tamit ci ba muy tontu Sonko mu dugal ci seen TV parce que ñaari entité yu bokkul la buggaan gay dani bu dem Euh, en tant que politicien en tant que politicien créé gëm sa bopp mhm. bokkul ak Sen TV mhm. Sen TV ay journalistes ñoo fa ne mhm. yu responsable yu indépendant yoo xam ne xëy na boo fa xoolee bu baax sax ñàkkul ay éléments Sonko ñu bëgg fi parce que ku ne kenn parti politique euh, euh, yëg-yëg la ku ne am nga droit voter ka la neex ànd ak ka la neex kon ba mu ba mu ba mu duggee ci tontonteeg euh, Sonko rek man su ma laajoon dama ko naan jarul tontu. dencal lebal tontu ba da tontu du forox. parce que saaga yàkkamti xeex la. Euh, Sonko nag moom dëgg-dëgg bëgguma sax di ci taxaw lu yàgg. Euh, Sonko daal wax naa tamit sànq ci plateau bi ne dafa am lu bari lu mu war a jàng te moo ko desee mooy mooy plutôt li ko nar a yàqal mooy ñun dañuy dañuy bañ nekk africain ba pare dañoo nekk ay sénégalais am nu ñu yaree avant moom amoon na ay hommes yoo xam ne fii boo leen tuddee ku ne taf sa ku ne taf sa gémmiñ naan ndax lu tax mun nañu saaga mun nañu wax wax wax ju ñaaw ñun nag ñooñu hommes yooyu fan la ñu nekk tey fu ñu toll tey moom bu fekkente ne dafa bëgg a jël euh, fàtte offre politique. bi mu war a bi bi mu seq ak sénégalais yi fàtte euh, ne réew mi ñu ne boo ko bëggee jiite il faut nga ormaal ñi la fi jiitu ormaal ñi la féetee ndaw ormaal ñi nga maasee jamono te orma bokk ci nga bëgg a ñëw ne yaa gën ñëpp bëgg a ñëw di ay ay kàddu yoo xam ne yu yu yu yu teggi newul nga yëkkati ko tekk si ñoo xam ne Euh, euh, la ñu def yow defagoo lu ñu toll na defagoo fi dara na kenn falagu la ñee nag kenn ko ne si ñoom mës nga fi am responsabilité même bu dee directeur général nga jiite dara am loo indi la nga indi baax na baaxul loolu mooy waxtaan wi waaye mës nga indi dara te man mënumaa gëm ne nit si cent pour cent lépp bon yow nag amaguloo occasion prouvé falaguñ la dara nekk goo sax mosoo goo nekk DG waxuma laa na ngay nekk ministre waxuma laa ngay nekk président de la république tey boo bokkee yëf ak ak ak ay gor muy lu mel ni opposition ngeen opposé wu ci kenn euh, politique ay addition la du ay soustraction te dañoo toll ci àddina bi loolu lu tubaab di wax l'heure des grands ensembles mooy ay coalition ay dajaloo pour song dara moom présidentiel bi da war na waroon na ko yee fii la doon taxaw di xas système système système système te moo gën a nekk ci système ndax moom doomu système la fonctionnaire la ña ma doon xas ñëpp ba mu dem ci pando ba soxla leen mais dafa dem damu loos dem seeti ji Ablaye Wade seeti ji X seeti Y ba mu seeti ji Ablaye Wade heureusement Wade recevoir na ko avec gentillesse waaye la mu buggoon amu ko après kan la lu lëngool euh, Pierre Goudiaby Atepa depuis Senghor mi ngi fi koo kan wax gaa nekk ci système bi Euh, Sonko na na defaraat communication. mais activiste bii di Abdou Karim Gueye moom dafa jàpp ni. Euh, Aïssatou Diop Fall mënul wax lu baax ci Sonko parce que bu ko defee ñu dàq ko fa moom. waaw xam nga euh, man bëgguma sax di personnaliser. kii kii xurum xurum <laughs> mënuma ko wax Karim <laughs> seetaan naa ko. Mhm. waaye damaa dama reetaan ndax man lu ma leer mooy li muy wax moom mi ko wax sax ndax euh, moom moom kari Karim moom euh, tey la xew man maa ngi fi depuis quand te defe naa ni ku ne xam na kan mooy Aïssatou Diop Fall est-ce que man damay wax pour neexal Youssou Ndour wala damay wax pour neexal x wala y Youssou Ndour kan la àndal du Macky Sall la àndal Youssou Ndour xam nga day politique kan la àndal du Macky la bés bu yàlla saako ma toog de wax li ma neex ci Macky Sall wax li ma xam ci Macky Sall waa dàq ni noonu la yombee. moo tax man dama dama dama reetaan ba ma déggee kii xurum rek <laughs> dama ree ndax xëy na moom amagul CD yii xamul xamul lan mooy valeur CD yi ah Aïssatou Diop Fall bokk bi nga dàq da ngay da ngay teel a yeewu nag man dàq ma du noonu de parce que damaa toog di chronique wax sama xalaat waaw man est-ce que Youssou Ndour daf maa fay pour may may tagg Macky Sall Youssou Ndour fay pour may xas Sonko Youssou Ndour daf maa fay pour may xas euh, xurum xarak xaw ma non. Youssou Ndour dafa ma fay dafa gis compétence ni ma gisee ni mu jëlee gisee ñeneen jël leen noonu la gisee Aïssatou Diop Fall indi ko ci lan ci compétence am man nag xam nga li li nekk samay affaire mooy wax naa ne damaa sénégalais yi ñoo ma ñoo ma yar Aïssatou Diop Fall ba mu xewee ba léegi kenn mësuma gis ma nekk ci nii man sama xalaat laa mës a wax ku ne xam ne ne ginaaru kenn nenu ma xam nga tey su ma doon corrompu may wax ci politiciens yi kon da nga dégg ñoom ñu jóg kii corrompu la waxal nañ ko fi ay journaliste lu ne kon xam ma xurum xarak ma bu ne su waxee Aïssatou Diop Fall bu waxee man ba may xas ba astafurlah baat bi sax dafa ñaaw may wax ci ci première dame lan moo gën a rëy loola. première dame da nga sa dégg fii ci mim réew kenn ko ko fi mu kooku mës sa waxal leneen loolu mën a fay saal elle est gentille man ma toog ci plateau Futur Média plateau TFM en direct Youssou Ndour mi moom Futur Média. di allié Macky Sall ma toog fa wax fa sama xalaat loolu ñu ko mën bariwul mi réew mi ñu toll journaliste yu bari dañoo far fii wala fële Aïssatou Diop Fall la boppam la faral man tey jii Youssou Ndour su ma demoon dàq am na yeneen yoon yu muy jaar bu dàq ma am na feneen fu muy jaar bu dàq ma day fekk ma def faute lourde man CD yi laa yor man dama prestataire dama prestataire de service ginaaru je ginaaru kenn nenu ma man kan la kan moo sañ xool ma man Aïssatou Diop Fall mii taawu yaayam nga ne ma xoolal fii walla waxal lii ki am sañ-sañ boobu ay maamam yu jur papaam ak yaayam ju dooguñu man damaa suur barki démb xam nga loo tax man naan boo déggee ma naan cadavre ambulant laa mooy man kenn dama man je ne vois pas ce que les gens peuvent faire. soo position peut-être boobu moom mu am. parce que dafa far moom dafa far. dafa mais tamit ñenn ñi ci presse bi des tamit dañ leen di corrompre. waaw moo tax ma ne xam nga wax naa la nee la man xam nga euh, man damaa bëgg lu balan moo tax yàlla sa xëy dugal ma ci yëfu balan yii euh, réew mi chantage moo fi jafe. man neew ma je suis clean de mhm. mais lu ma leer mooy li li dal ñenn ñi daluma su ma daloon àddina wax ko. bu fekkoonte ne man damay corrompu corrompu nag mooy xam nga mooy lan mooy rose am ma jox la xaalis nga saaga kay wala rose am ma jox la xaalis nga waxal ma lii man loolu sekkuma kaa gi nit ay ay nit nag dañuy defante teraanga man mun naa damay toog fii bëgg de mooy njaay rek euh, ma koy nuyu sax nag gëj naa ko dégg euh, honorable député Aïssatou Sabara mi ngi euh, grand parti bu Malick bu bu bu sama mag boobu Malick Gakou mais dama yónnee fii ay cuuraay ay bagage yu baax loolu xam est-ce que corruption la xam nga yónnee ma ko pour ma waxal ko lu baax mm-hmm. yónnee ma ko pour ma xasal ko kenn day jigéen may jigéen. mais teraanga bi ngeen loolu la loolu te benn li ma si gisante man ak moom mais ma defaat dama ñëw TFM sax ñëw euh, kii gardien yu nga fekk fekk ay paquet ñu ne ay soto diwloo ko jël ça c'est pourtant mu ubbi anonymement damay fekk fa ay affaire ay bagage kon loolu dafa bokk loolu loolu du corruption xam nga euh, nit booy wax dara da xam bu baax kan ngay waxal ak ki ngay wax ak dangay xam ki ngay waxal ak euh, fan ngay waxee man ñoom am amuñu sama njëkk tey su ma naroon nekk corrompu tey ay milliards nga may fay. parce que ah noo non non ay tamit dégg man ñàkk ma fayda. Mm-hmm. ku ndugg ku ndugg mag moo yëngal dëxin. man euh, petit journal ñii bëgg ma bëgg ma <laughs> yaa ngi may wax loolu. ñii fa eh. ay mille francs ak 10 000 francs ak ay 100 000 ak 200 000 ak 1 million 2 million man maa mag loolu. man maa mag loolu xool leen ma bu baax nag yow xam nga jigéen nga femme nga. Mhm. xoolal ma bu baax. man ku mën a jënd man ma suur barki démb. toujours égale à elle-même nee naa leen tey émission bi du yomb parce que Aïssatou Diop Fall laa dalal donc foog mu neex.